dama ne la lu ma communiqué noonu combat laa bëggoon n'est-ce aw jën. aw jën bala nga kaa jàpp. da nga koy kor meb. sànni si biir ko day xencu meb bi est-ce xam ne est-ce que lii meb bu baax la wala doonu bu baax bu ko xencu mu ne lii baax na mu jël ko bu jëlee nag nga tukkal njam xëcc yépp si gaal gi. guy gi noonu laa ko def. dama ko tukkal. dama ko piège dama ko piège tukkal ko yégal ko si gaal gi ba pare nekkaat si leneen. ndax moom boo ko merloo rek nga am ka te loolu du sport sport xam nga lan la kafree. kon daal man ma déggee wax dafa mel ni guy dafa mel ni lii du dafa mel ni. Ah, déggee ni muy moom jàpp na boo jàpp naa ko boo déggee jàpp naa ko mooy maanaam sama combat ak moom guy gi bu leen dégloon ay communiqué am danaan ma. sama plat bokk si B bokk si E bokk si. C bokk si beneen ba la bokk. est ce que la woon. est ce léegi maanaam tëb na A tëb na B tëb na C tëb na E ñëw si man kon li ma doon jàpp jàpp naa ko tukkal naa ko. ndax mooy li may faral di wax nit ki bul mer ba jël loo xam ne dalay gaañ pour ëllëg man doomu aadama laa si kaw suuf mënuma merloo. ndax sama xol toj na ni damay dab saaga ma ndey si làmb ma xool ka ree dem sama yoon loolu loolay sportif sportif waroo xol yor benn xol rankiñe guy gi dama kaa kornet mu fóon ka gaal gi laa soxla woon ceene rek doole lay loolu ñëpp bu ngeen sëqee mm-hmm. xam ne am na mm-hmm. mm-hmm. guy gi

combat moom dina am. <laughs> dina am loolu moom ala kulli an dina am. uy ma ala kulli an day am ndax lekk nañ avance jàmbur moom lekk na man lekk naa ala kulli an day am ndegam yàlla suñu borom mu ngi may fanu gudd ak wér ah, ak santé bu baax. combat bi dina am mais dama ne la gis nga euh, guy gi na xool nu muy déglu naa ko nag si benn lii euh, comment dirais loolu sax dinaa ko leeral pour àdduna xam déglu naa ko si kii mu ne ma man maa ne bu doonee guy gi man na ma kaa bu doonee sa 15 millions laa koy préparé bu doonee comment dirais bu doonee guy gi 5 millions. foofu xam nga nu mu demee rôle boobu laa lay expliqué tey nga xam loolu boobu xam nga nu mu demee n'est-ce pas bi may wax seex yaa ngi woon fii toog audio bi audio la ci tele laay waxee. si seen YouTube laa waxee ñëpp a koy àdduna ñëpp kay koy seetaan. audio la audio bi comme li ma la wax rek sportif warta gaaw a gis boppam. warta gaaw a mer audio la laa lay wax ma guy gi euh, buuse day dégganteeg seex n'est-ce pas day dégganteeg man audio bi ma si si moom laa ko dama ko lii nu ma tuddati oh, vocal laa ko def vocal. buuse la vocal ci boppam. ndax buuse kaay ma wax la nag buuse mooy ban saaru nit buuse. nit ku baax la. ku bëgg a géejawaay moo nekk noonu. daa damay déggante ak moom te day ñaan yàlla suñu borom yàlla na guy gi daan ma moom day ñaan loolu. wallaay lazim billaay wallaay taala sama bàmmeel laa toog. te pourtant damay déggante ak moom. pourtant ñu ngi koy jiñ lu ne. waaw ñu ngi koy jiñ lu nii. barki salaatil fatiha chaque jour bu ne ma eh, chaque jour saa bu déggee da danaan ma eh man faralu ma la guy gi lay ñaan yal na ko yàlla suñu borom may ndam kon kooku di wax loolu bëgg na géejawaay bëgg na gosam moom buuse buuse kenn la ci géejawaay isamul ma la expliqué kon liñ koy waxal yépp wallaay lazim man bu ko defoon dama naan la eh moo ko def wallaay lazim man du ma ëllëg bu ma deewee sama la voilà déglu rek dinaa ñëw si audio bi loolu jarul yàkkamti bu ma deewee ëllëg bu ma deewee ëllëg man du ma du ma naafeq du ma waxal nit ki lu mu deful wala may aggraver leneen non li nga ma wan rek laay laay xam yaa may dégg bi may déggante moom day ñaan naan yàlla lu guy gi naan te pourtant si dëggam la ne dama ko nangu nangul moo tax ma ne sportif warta gaaw a gis boppam warta gaaw a mer bi ma audio audio bi. dama ajo ajo bi non dama ajo di waxtaan noonu après moom moo euh, bu ma juumalee kii. Bousse non non avant Bousse keneen ki ku. Euh, Abdou Diouf jël vocal na ma yow guy gi bu la jàppee dina la duma dina la daan ma ne ko kooku ragal la du jël sama avance. boobu lekkagul non non boobu taxawagul. Mm-hmm. léegi man na nii seex toog ni mën na ko seex ba xam nga combat bi day taxaw mun a maa ah, mën na ko ndax gan gi. Mm-hmm. daa gaaw a siisu daa gaaw a gis boppam. rek ma téye vocal bi vocal une minute teg la. mais loo ci wax. li ma si wax kay defal nank dina ñëw. Ah, bul yàkkamti si loolu. gis nga audio bi bi ma waxee ma ka man maa wax loolu si audio bi. Mhm. boobu combat bi taxawgul mooy maanaam mooy meb rek. Mhm. meb bi dama koy yor nank mhm. ma wax audio bi ne ni euh, gis ngeen euh, maanaam guy gi. ma tagg ka foofu mën naa bëre macha allah nangam nangam tagg ka moom lu mu mane. mais gis nga après bi ma paree si audio bi li ma ne. nekka nag man maa ko man maa ko ëpp doole maa ko dàq bëre. ëpp gàllaaj non teer rek maa ngi ñëw teer rek. maa ko ëpp ga non non gàllaaj waxuma ko gàllaaj dama ne ko foofu bu amulee sens sa ko fa ëpp. ndax waxuma ko maa ko ëpp gàllaaj yàlla suñu borom rek kaa xam ko am gàllaaj. isa ma leen expliqué ma tàgg nekk yow sa tànk yi baaxul. maa ko waxoon loolu ndax lépp bëgg combat ndax boo xoolee sama combat ak saa kees noonu noonu foo saa kees nangu la bëreeg man kon il faut man man ma. xam naa ni moom siisu man la day jël kombaa bi. Mm-hmm. mais man audio booboo tax nag tey nag combat bi taxaw. waaw dëgg la léegi man te pourtant te pourtant. Mm-hmm. te pourtant Ketchup lu combat bi taxaw moom. lu nekk la ci dégg lu ne la ci dégg. te pourtant moom moo siisu jël combat bi. noonu la demee nag damay leeral rek pour mu leer. waaw li nga leeral voilà mais man li ma jaaxal da ngay par des nga jàpp jën yow soo mooylee yow génn gaal gi ba ko loolu mënta ne. ay ay dégg loolu siik. waaw waaw non non doon siik na xamul tax. guy gi champion la ndaanaan la mën naa bëre lépp nangul nàkk mais na ma nangul xam ne maa naq maa gën a naqaree bëreel si mbër ndax looy bëgg def looy bëgg def si kaw si bëre laa loo si bëgg def. sa tanka wé fu mu joggé dina xam yow lo bëgg def yow jaar nga ci jaar nga équipe nationale n'est-ce pas buma jumulé voilà man lo bëgg def ci lamb xamna buma togué di sétane mbeur la la wax bu jappé dama nan kélé bi lay def té lool lay def kon lolu bo mënta bëre do ko xam guuy gi mënta def dara ci bëre ba jaaxal ma yow xam nga ni sax laasana yow maa tax a bëri guy yow loolu xam nga ka. ah. non xam nga ka. noo ko dàqee bëre. non bokkuñu. suñuy bëree. ñoo bokkul daanu ma kum daanul. yow olympien nga. moom daanu maanaam moom daan na ñoo xam ne man daanu ma leen. Mm. mais bëri yee bokkul man lu may def day wóor. dégg naa daal dégg naa ndax Sénégal déglul ndax laa la wax. Mm. Euh, nu ma la ko mën a expliquer gis nga Sénégal mënoo wax ba nekk fi da ngay liggéey ba nekk fi rek. yaa may dégg. noonu la demee mais guy gi mënumaa dàq bëri si àdduna. yéen ñii journaliste yéen ñëpp xam ngeen ko. guy gi mënumaa ëpp doole. non dañu waxtaan te sérieusement guy gi mënumaa ëpp doole dañuy waxtaan légèrement. Mhm. guy gi mënumaa ëpp doole. Mhm. mënumaa dàq bëri. loolu ku yow boo tëddoon ba guddi buur ñu wax la ko guy mën na maa puddal mën na maa dàq bëri doo ko gëm. non doo ko gëm. ku xeex. ko waaye xeex yow guy xeex guy gi kan la fi dóor mu daanu. mbalaaw mbalaaw la fi def. non mbalaaw la loolu du du kuu la. mbalaaw xam naa li may kii xam na ko. sànni bu waaw mu mu mbëkk ka non moo mbëkk kuu daanu loolu dañ ko koy nangul moom moo ko def mais dama ne la dóoroo ko fi technique boo xam ne lii xeex la xeex bu jaar yoon. téye carte bi normal dox si kaw defagu ko nañu waxante dëgg. nii rek lay def nii nii. yow mos man. waaw xoolal samay combat. bu may xeex man ak Brise de bi may xeex ak moom gis nga li ma ko def. dooruma ay combat maanaam ay lii man bu may xeex damay xam lu may xeex lii nii laay xeexee te dina damay faral di dégg ci benn suñu benn kilifa ndeysaan dañuy faral di ñuy wax benn baat danaan du wax dina du ñu lii nu mu tuddati du ñu wax ku xeex. ku daan lañuy wax. man dama lay dóor daan la. wala yow ma may sëb ku daan la. mais buur kii dafa am lu ma laaj. dama gis fan yii paase bu jógee euh, ci MMA bi. ñëw sol blazer bu yéeme bu mucc ay <laughs> Modou loo dafa sol blazer bu mel noonu Balla Gaye sol blazer bu mel noonu <coughs> moom it mu ñëw sol bu mel noonu. Mm-hmm. comprendre ma nag man comprendre ma daal. waaw mais xam non xam nga tey jii mooy yenn saa yi yenn saa yi il faut nga génne beneen style. c'est la première fois laa ko sol sax. gars yi ñëpp a apprécier ne est damaa jàpp. non dalaa jàpp moom. <laughs> bañ am na journaliste yoo xam ne sax am na journaliste yoo xam ne dañ may ñaan affaire ma leen lii lii jotu leen. waaw ah, jotu leen dëgg. ñëpp ñëpp ñëpp jotu la. ah waaye mais yenn saa yi day baax ngay génn si ay feem yoo xam ne gars yi dañ lay. maanaam ñii di sol lii ñii dàq la kaa sol. mën nga mën ca. voilà noonu la demee moo tax ma génn foofu di profité di si nuyu sama papa Alassane Niang ak soxnaam tata asu bu ma nekkee New York si ñoom laay dal ak Mouhamed doomam ak papa doomam ak ami ñooñu awma seen fay wallaay lazim dañuy jàpp samay mbir yu bëree bëree bëree bëree bëri awma seen fay fa ñu maa ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom defal leen jàmm gën leen a boole waaw seytaane bis mhm. di rek naka la fas yéene dundee bés boobu ak dafa baax rek fallu Ndiaye man na ma wax promoteur yi sama waay la Fallou Ndiaye bi ma nekkee Yoff bi ma nekkee Yoff Fallou Ndiaye dama daan dem aéroport la loon liggéey yaa ngi fi rappelé wu loolu. aéroport lépp sama njëkk. gu njëkk foofu loon liggéey man ma loon dem ma loon dem foofu entraînement foofu. ma ñëwee saa si moom laay ñëw ñu toog waxtaan noonu mu doon sama gain damay jël làmb sax oo ko fenn ñu dem toog reer